Euh, euh, Mbathio Ndiaye moom lay defee échauffement en attendant arrivée Amina Poté man ak Thio ba midi 30 la ak Thio bienvenue ci Yeewu Leen Plus bi en direct ci télévision Futur Média ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ak fu ngeen mënti nekk heure bi nag euh, yéen a ngi ci biir kër yi diggante Rossi taal añ jeegal wala jeegu ñun ñu leen di accompagner yéen ñi nga xamante ni yéen a àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur Média donc ñu ngi ànd ak glace weli xam nga période bi période glace la il fait ngeen dem ci grande surface yëpp di fa fekk wili euh, bu defee ngeen mën a féexal seen seddal seen put dee leen seerlu dafa am solo li ngeen di seerloo nag mooy li ngeen di gis ci écran bi mu ngi tudd wili euh, donc wili moo leen di may yeewu leen plus euh, poté ak man en direct ci télévision Futur Média mën ngeen ko déglu itam en simultané ci King FM 99.4 radio digitale du Sénégal c'est vrai que programme bi dafa arrêté waaye yeewu leen plus bi itam am nañu ko ci euh, réseau sociaux yi donc 11 trente 30 pile euh, ñu ngi euh, xaar Poté. qui est en train d'arriver elle va me rejoindre ci plateau bi dans quelques minutes xanaa rek ñu profité ci continuer échauffement bi parce que remontada moom la ñuy échauffé woo ak ki nga xamante ni moo di Mbathio Ndiaye moom itam jàmbaar la et puis mën na li muy def mën a sañse teg ci saa yu mu neex fexe na ba bokk na ci game bi donc Euh, moom Mbathio euh, moo euh, génne remontada boobu xam naa fan yi <coughs> dina ñëw seet si ñu télévision Futur Média 11 h une ma calculer temps bi may xaar coo parce que xam ngeen ni bu fi nekkulee damay wéet man je l'attends maa xaar coo. fan la coo toll ma ne damay ragal xaar ko ba émission bi jeex waaye naa ko xaar rek yéen xaar leen rek gis ngeen ni may doxee nii di ko xaar bu leen neexee yéen ñi ko yàkkamtee gis ngeen toog nii ngeen jóg dox comme man ñu xaarandoo ko voilà merci beaucoup mairie mairie temps yaa ngi ci dara de ah de ndeyam liggéey na mon ami Ibou Cissé le faux caméraman lay laay xaar nii de laa koy xaar boo demee dafa guddee tëdd xam naa jikkoom coo xaar ni bu yeboo nii ma def na ngeen ko defee noonu rek bokk seen bokk seen loxo xaar Amina Poté nañu ko xaarandoo bu ñëwee ñu woyal ko Poté loo indaale <laughs> ale yéen ñi nekk ci biir kër yi jóg leen ngeen dox ñu xaarandoo Poté ku ngeen di xaar dafa mel ni baatam laay dégg di moom est-ce que xam nga ni buy dugg si ci kër baatam ngay njëkk a dégg ma ngay woo asiis te Aziz defu ko dara léegi asis yow bu yaboo nga ñëw jël micro bi rek am am am yóbbul ma micro bi fële nañ ko ko taqalee fële ca ginnaaw nii ma koy xaaree yéen ñu nekk seen biir kër yi mën ngeen ko xaaree nii. bu ñëwee ñu woyal ko Amina Poté looy ndaale dégg naa baatam ma ngay dox di ñëw te baat bi ngay dégg. Mary Bey Diouf mon ami mon frère Mary <laughs> ah lu yàgg ci diw nit ànd na maak poté ba léegi xàmmeetuma frère ak sœur yii la yéen ay seen Mary Bey nan ko mon ami mon frère wala Corombaar Ndiaye moo gas sur <laughs> allez Amina Poté va vous rejoindre dans quelques minutes euh, ci plateau bi bu ko defee ñu bégal leen yéen surtout jigéen yi nekk ci biir kër yi bëgg nañu geen kontaan fii ba midi bu leen fàtte itam ni dans quelques minutes euh, Apulaay dina afficher numéro téléphone yi ci suuf écran bi comme ça ngeen mën a participer euh, composer benn par benn ci numéro téléphone yi yegsi na Amina Poté loo indaale to loo indaale. boo bëggee ma jël si la. Hmm. da nga bëgg ma jël si la. déedéet est-ce may bégal. ma jël si la. danga may daanu rek. soo bëggee ma jël si la mën naa laa boot. danga may daanu rek papa. sa tànk bi mu ngi tane. ma jël si la. xaaral ma dem jëli ko. garaaw damay daane damay daane. xaar leen ma dem damay daane doo daanu dama lay damay daane ma jël si la damay daane duma la daane damay daane duma la daane bay ma jël si nit ñi dañ laa war a gis danga bi commencé damay daane bay si la déedéet damay daane wuyu ma maa ngi sax am bi ba ma wane maa ngi sax ma jël si la damay daane dama lay jël si doo daane duma la <laughs> dafay doog a yegg si xam nga normalement booy doog a dugg si il faut jox la ndox nga serlu seen podi naana goma téye sa biir fees ngay doog a mën a wax léegi nañ ko bàyyi le temps muy. Euh, le temps muy serre man par mardi si sama yaay daan yàq. <laughs> donc mardi da ngay reyoontu. yow mardi loolu nga naan mardi. mais yow loo mel nii ci mardi bi nii. na naa mar. neex ah <laughs> bi nii. <laughs> ah eh. am na lu change sa kanam am na lu rafet loo ñëwee am na am na loo jël tey. Ah, ku jaar fii non non am na noo ñëwee am na noo ñëwee tey am na noo ñëwee kanam bii daaw ma ko gis mm. bii kanam bu fresh xale baa ma makke mooy kii makke euh, astar am na benn xale. ah day kumba day kumba bu si kooku la xale yi jël <laughs> kooku mooy makki yóbbu xale yi xam ko mooy makki xale yi yóbbu ku fi xew rek moo lay moo lay makki. lay teel a yeewu daw ñëw. kon da ngaa a dem tey. moom moo ñëw tey nag. Ah, waaw waaw waaw. daa teel a daw. dafa war a teel a ñëw nag dafa war a teel a ñëw. bomb ma. léegi bomb na la saf na de. rafet de mooy saf na jàmm safu ci waaye saf na de. yéen mën ngeen jëlee. saf na de. mën <laughs> ngeen na de buñ amel ngeen ne amel a ngi fi toj. ah amel a ngi fi toj nag. buñ nee kumba. waaye ku fi toj rek ñu wax ko nag. Ah. moom day kumba toj na fi tay toj na fi tay toj na fi tay kon day kumba toj na fi tay xar ma toj na fi tay kon VIP xeer xale yi nee nañ dama yegg si rek. ñu ne ma xar ma nee nañ nii waaw. Baye Fall kii dafa ngéwéle moom Baye Fall la. wala bokk. <laughs> yow Pape man sama yaay dama daan yàq le par mardi. par waa dégg naa par mardi ngay yàqu daa nekk ci moom dama hmm. bëgg nga yàq ma tey. kon danga bëgg ma teral la. te damaa bëgg nga woo ma nan ma daan woowee di ma waxal yam ma daan wax naan ma mami. Hmm. xam nga moom bokkul ci yi naan ay Enda Mbaye ak. da nga bëgg ay Ami Jaw ak da nga bëgg ma ma la. tey dama bëgg da bëgg a dégg mami. damay wax mami. Ah. Ah. mais bu ko dégg Mari mbay ay Pape ay Pape yaa bon. ba ma jongalee petit ma maa ko yàgg rek ne ma mama petit sama doom wil petit bi filmé nee na ko ban petit nee na ban petit <laughs> petit gi dëggal boppam <laughs> petit yow t'inquiète pas sañ la wax loolu doomam rek la ko sañoo wax petit lay taawam amee ah, mais ku tudd petit jaar nga ci néegu góor ah ah ah ah, ah bi mi bi bi mag la ma laal sama volume waaw démb dama ne nii rek ba concert rek mi yaa ne ma ah goro moo ma xamee ma ay goro moo. yaa xamee woo goro moo man barki yaa xamee ma ay goro moo parce que ba pare laa xam ne ci bëtu nit ñi nag laay xamee ni wax naa goro moo. sama bi nee na ma démb waaw waaw waaw waaw Salaaw man xaw ma yi ngay def ak xaw ma mën nga yooyu Diallo Diallo Diallo nekk mën nga yooyu. man mi wax nañ ma ko ah man de maa ngi jëm rek man mii barki moo ne ma ah Pape nag moo aay nag lan na ko yàlla fa. xaw ni woon mën nga yi ku yi nga xam ne ndaanaan la bu ànd ak yow nga xam ni ne ndaanaan la. waa nga ni nga ni bi ngay xaraf a ngay xarafali petit xam xaraf moo gën a moo gën a kii quoi. mais yow da ngay wax ba pare. bu nit ñi réagir ngay wax. Eh, eh. ah am nañu sant jongu kii maa ngi koy suturaal. dégg nga ah. jongu ah, yi xarafa gën. Ah, lu ma ci xam <laughs> dama wax lu rëy. eh Pape dee ma tànk waa Pape yow li nga maa defal stage ma xam tuuti àddina ndeysaan nitu néeg la daf fees daf fees daf fees mu ngi toq mi ngi toq mi ngi balaa ngay wax balaa ngay wax ay gros euh, dama lay bégal bàyyi ma bégal la bu dee ma wooyee mami waaw léegi mami ma wax ay wata de dama lay <laughs> Marie <laughs> yow damay ragal bëgg bët tey léegi xoola mercredi Marie Mbaye laa lay woowee mais tey mami ngay dégg waaw tey rek may wax mami nag léegi mami suway bi sama yaay dafa mami suway bi waaw kay xam nga mami suway bi kay fii kay fii tam ma si sa kaw wala <laughs> taf tey tey maay bañ tey maay bañ tey maay bañ ma tey maay bañ tey kale invasion mu mën kii fan laa jëm ak moom. lu ñuy wax coro <laughs> avec Sion. mais coro yow noo rafetee nii tey sa sàkk yàlla gën a fës. yow yaay séeri kan pap ne. affection la bëggoon wax mu ne dafa manqué. infection affection <laughs> affection. tey coow ñuy seetaan bul sa def bruit. yàlla baax na yàlla baax na. léegi Marie Mbaye astafurlah mami Soye bi. waaw alors mami Soye bi dama lay bégalee ak euh, benn way. boo xamante ni clip la balaa ma koy tegal fii. dama lay tegal euh, dama lay tegal benn clip boo xamante ni man kii dina ma sonal tey. des na tuuti du ma liggéeyee ko yow par maa ana téléphone mami. mi si merci. ak lan nga bëggaat mami moo gaa sur je t'aime. <laughs> eh tàmm nañ ku dëggoon na fajar ñu ne xanaa daa laxal man. du ma waaye kii mu ngi tooñ. <laughs> man man Pam. mais eh. man Pam non souvent. <coughs> liggéeyu matin. Hmm. soo déggee da naan kii dafa laxal. te télé bi tàmm nañ yooyu mais man je bois même pas à pas <laughs> je pique café je dis je oui man damay gént tey. bon man maa euh, indi la chaise nga toog ah. non non non non. ok léegi mami. mami soo ay bii est ma defee soog a jàpp. mami. Euh, mami soo ay bii ko annulé rek léegi mami soo ay bii xam nga lan laa bëgg ah. lan nga bëgg ma defaat ma may la café. non j'ai déjà bu léegi mami soo bi ma may la ndox. mais j'ai déjà bu j'ai déjà pénati. ma pénati. man <laughs> Pape dama laa bëgg. benn problème. yàlla ma yàlla yàlla yàlla àtte ak moom léegi dama lay bëggal mami. coroo ngi nii di yoot. mami bàyyil xale bi mu yoot. léegi mami waaw sa manteau bi da ngay bii jël. <laughs> maa la bëgg nga laaj xolu jàmbur. fii rek la ma yàlla doon xaar rek <laughs> yàlla yàlla ci Amina Poté la ma doon xaar ci télé bi en direct. léegi dama bëgg a bégal euh, mami Soy bi alors mami je vais te mettre une belle chanson. waaw dama lay tegal benn woy boo xamante ni xam naa ni boo ko déggee sa xol bi day sedd. waaw xam nga da ngaa bëgg soxna Baali. waaw ii Pape kon damay calme nii nag. damay xam nga soxna Baali. damay foo ko déggee rek da ngay calme. waaw tey damay teel a réglé waat sax. parce que barki démb dégg naa la nga naan boo liggéey siwul woon weekend bi da ngay dem weekend poroxaan waaw léegi na comme dema goo weekend poroxaan dama lay bégalee ki ne laam li mu woy soxna baali comme ça sa xol bi set yow rek laa koy may maa naxoo ma yow rek laa koy may baali nag ma koy jox léegi laa la koy jox alors pour bégal ma mi suwaay bi dama koy tegal <laughs> sama xol baa ngi neex samay mbokk sax fi ne ñu ngi bég mi mu bëgg ci xolam di ci bégal nag Mari Mbay bu Kaolack bokkul ak mami suwaay bi bi fi ne ah, mais am naa benn yow loo def yàq ko <laughs> li ngay dund may nangu sax a ko gën <laughs> yow loo def yàq ko sama yaay day am jaana waaw mais li ngay di ma may di ko nangu sax ma ko dàqal léegi léegi da mooy recommencer à zéro mami suwaay bi dama lay tegal xam suñ conversation daa neex nit ñi hmm. ñuy converser nii rek ñun ñaar ok léegi mami xam nga yow xale bu baax nga. jox ma soxna baali bi. waaw dama lay tëggal soxna baali muntaxaa bi. parce que xam naa ni boo ko dégloo sa xol bi dina sedd. sa nga ngay nelaw waaye bu dellusiwaatoon doo defaraat sa toogaay. balaay du ma ko defaraat te sama yaay ñim fi bàyyi ñëpp maa ngi leen di jàppale. ma nga ñu denc màkk est-ce que xam nga ni papa mu ngi ñu denc màkk. ma nga ca màkk ñu denc. fa la ñu ko denc. léegi nag kokoy dinaa suway bi. moom mi nga bëggoon soxol xol bi lool nga màgg yàlla boole la ak soxna Baali. waaw soxna Baali laa lay bégalee léegi nii ci li ko kiné la mooyal. barke Serigne Touba loo ma ca tegal bëgguma soxna Baali rek doy na. ay ca tegal. soxna baal rek. c'est vrai que Adjatou Kiné Lam du ma doyal ci ay euh, mbiram way soxna Baali Muntaxa ma doon ci bégal euh, mami Soay bii mami kontaan nga. damaa bég ba nga nee ma mami waa Arasa jug. soxol bi sedd sama yaay àjjana la ne ma ngay kontaan nii. leneen loo bëggaat dinaa la ko defal mais dama lay bàyyi nga wax dans le calme sans gros mots. waaw voilà donc yow laay déglu. léegi dama ciy boole croiser la samay bras. bu la neexee nga bañ a croiser parce que sa bras yi dafa war a dem ci Facebook bi pour nga xool ñi lay seetaan. waaw damaa war a teg souvent. point pointe ci wéli bi. voilà ci wéli bi. bu la neexee nga jëfandikoo. waaye nag Pape naka te wéli du tàngoor rek la baax de. la baax sedd. Pape de xale yi danoo togg reer le tànk may dugg kër coo di génn nekkete nee nañ reer ba tefet petit dafa am gan. Mhm. indi na ñaari vacancière ca kër ga. cousine am yi indi na benn cousine ba mhm. pare indi benn cousin am. ma ñëw ne damaa bëgg a reer petit dugg ci waañ bi ne man lay defaral reer te moo lekk reer ba mu jeex de. Mhm. dugg génnaat ñoo naan ma maman ñii del wax ak ñoom ñu lay tibbal. kon lekk na reeru kat lekk na reeru reerkat waaye xoolal potu weli bi ma yóbbu. Eh? ne ñoom laa ko yóbbul bu ñu xëyee lii ci ndeke weli baax na xaaj guddi. fees na biir. jaaxleeti liyee weli xool. te day remplacer boolu dof. non weli lim mën dafa bari damaa naan weli ba pare da ngay mel ni ku naan garabu nelaw boo paree. Ah, ndax damaa teel a tëdd. parce que daf lay soulager daf lay soulager. defaraat sa yëf. ba pare feesal sa biir. te day nor doon ci nor nor. non mosuma gis yow dafa mel ne xam nga wéli nag. Pape li ma lay nettali yaa ma ko a xam. yaa dëkk taay damay eh, seetlu Pape damaa bëgg ñu bëggal suñu xarit bi nga xam ne. Mhm. moom moo daq jaabante escalier ci suuf ci kaw. Mhm. doom ji day anniversaire tey. Eh. kooku dañ koo war a bëggal Pape. kooku fotom day dem léegi. xale bu nangu la. fotom day dem léegi ci apulaay. waaw tey dañuy teel a waxtaanee Mouhamed émission bi sax tey dañ koy may Daala ak Mouhamed. bul dugg ci yooyu yëpp. ah Pape xanaa kii du sax xarit xam naa maam ji njaga njaga day teel a récupérer récupérer <laughs> anniversaire u xale bi kon bu ko tuddee dara nañu ko bëggal rek njaga ne nii macha allah eh. day puus ki ne moom toog sama papa njaga mi la bëgg sët bi sama papa njaga sama papa Ndiaga mi ci koñ bi suñu papa la <laughs> eh sama papa Ndiaga eh. alors joyeux anniversaire donc à bébé euh, Mohamed Mohamed doomu Kiné Euh, ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér on va mettre sa photo dans quelques minutes c'est vrai que anniversaire. waaye nag yéen ñi seetaan préparé leen de. Mm-hmm. doomu kinne la ñuy dugal. Mm-hmm. kinne doomu njaga. Mm-hmm. Mouhamed mi ñuy dugal bu ñu ko dugalee ngeen xam ne ci kinne jur na doomam boobu xale bu rafet waaye kinne mu ree rek. doomu daala. doomu daala. daala paala. kinne daala. <laughs> papi daala kinne daala. kinne daala. lépp rek ci daala donc happy birthday euh, bébé euh, Mohamed ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér c'est de la part de maamam. Euh, Viviane euh, de la part de euh, ay tonton ak ay tata waaw mi ngi nii sol maillot tata Amina ak tata <laughs> tata la tata tata lan nga bëggoon tata Pape Cheikh tata Petit man daf may dal <laughs> Pape kaay kaay dama laa soxla loolu dafa oyof kaay nii. non yow man dama lay teel a bàyyi. dama libéré de la part de Tata Dio ak tonton Dio donc tonton Dio ak euh, Tata Dio ñoo le souhaiter un bon anniversaire happy birthday. quel mignon garçon. loo dund doyul Mohamed ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér c'est de la part de sa grand-mère euh, Viviane nee na mu ngi koy ñaanal gudd fan. ak wér sa grand-mère Saliha. non sa grand-mère Ndiaga papa Kin ah son grand-père. son grand-père <laughs> bul dem bul dem. sa grand-mère Ndiaga. <laughs> ñun émission bi xam nga ni nga waroon tuddee ay yeewu leen plus yëpp dox jaxasoo. <laughs> c'est vrai que jaxasoo la war a tudd. waroon tudd parce que finalement même ñi seetaan ils se retrouvent plus donc du coup ñun tamit dañuy jaxasoo man ak moom. dañ ko waroon tuddoo jaxasoo. mais. deret dafa jaxasoo nag dan taxalante sax taxalante deret dan taxalante deret waaye ñool ñeen taxañ taxalante deret mais Pape Aly Ngouille Ndiaye waxoon na ba pare waaw mais taxalante deret la waaw taxalante leen deret yéen ñi bëggante sidit ak sidit ay ànd ñu taxalante deret ñu taxalante sax coo coo mu ndaw kaa ñu taxalante deret kii kay góor coo la kaa ñu taxalante deret ah, eh yow kaa ñu taxalante deret sa baay ministre la ci réew mi te daf dara lu ñaaw kaay coro kaay nga bañ yow Coro kaay ñu taxalante deret sama deret te doo ko am yow leer laa la wax kaay la ñu taxalante deret <laughs> Coro mënoo koo may deret ndax ñaari zéro la moom. <laughs> allez 11h57 dans quelques minutes ñu won leen euh, euh, Wéli. ak euh, ni ko xale yi bëggee sénégalais yi bëgg ko mu ñuy accompagner ci télévision Futur Média du nuyu nag sa yaay. suma yaay ju baax na ba Dieynaba Fall. na ba Fall mère bu baax. voilà moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax xel est en train de nous moom mooy yaay Dekko Ndiaye Dekko mi ñu dénk Ibasa yi euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee parce que bokk na ci ñi nga xam ni bëccëg bi euh, dañuy bànneexu ci euh, jotaayu Pape Cheikh ak Amina Poté Poté ak Pape. Pape Poté donc dañuy papoté man maay Joo mooy sama coo donc coolo ak Joo affaire de bégalante. na maa bëgg sa kër dama bëgg a sëkkat ok ma ñëw jàppale la nga sëkkat dee taxawale ma sëkkat bàyyi ma dugg si ruq bi tey la mardi dama lay bégal bàyyi ma sëkkat nii bàyyi ma téye la <coughs> bàyyi ma téye la bàyyi ma téye la sëkkat naa <laughs> <laughs> ay nit yoo xamante ni leen neex la ñuy wax mais amul benn problème mais Pape yow da ngaa bari yërmande de. non yow c'est normal c'est normal bëgg ma téye laa xam ne ko baax nga. yaay sama joo yaay sama joo yow dama laa bëgg a ñaanal dama laa bëgg a ñaanal. ay sa ñaanal ma ma xool yàlla nga tamit yàlla nga gudd fan. ayca bégal ma. ayca léegi dama lay bégal balaa ma lay bégal ma bégal ci Ami Ndaw bu RFM. waaw Ami Ndaw sa copine. waaw Ami Ndaw sama xarit. Mbacke Mbacke bi yaay sama jaara Mbacke. waaw donc moom Ami Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax moom moo yor tàgge bi RFM. am ñu ngi lay ziar mais moom moo yore aussi publicité yu Richmond Gis. yu Richmond moo tax Ami am na njariñ ci kër gi. très kon dañ naan ko Ami madame Mbacke bu groupe. Futur Média. di bégal tamit euh, madame Cissé Marie-Louise euh, moom tamit euh, mu ngi bégee di bëggal itam Lisa Georgia coordonnatrice bu King FM première radio digitale du Sénégal Oumy Ndiaye ma nga ca Angleterre moom tamit ñu ngi koy bëggal ya Cheikh Dioum madame Dioum yaay cuuna moom tamit mu ngi bànneexu Adja Touré tamit mu ngi bég fa mu nekk ñu ngi koy bëggee bu baax. baal ma même ma nuyoo. kan nga bëgg a nuyu. boobu ba tey yaa ngi nuyoo Pape yow kañ nga. xanaa mais mais mami. Illimix nga am xanaa yow comme dama laa noppiloo tey donc danga may bàyyi ma wax tey. mais Pape dama wax sama ay. damay bañ nga wax gros mot. non léegi nuyoo rek. ok nuyoon. maa ngi nuyu sëñ Modou Mbacke bu sëñ Daam Atta sëriñ Modou kooku sama sëriñ la doomu ndeyu sëñ Sadikh sama sëriñ bu baax bi. sëñ Sadikh nit ku baax. waaw sëñ sëriñ la ku mm. baax. sëñ Sadikh mu soxna Baali Muntaxa. Mm. sëñ Sadikh mu. Euh, sëriñ daam at sëriñ sadix mu balaay sa ah ñu ngi koy nuyu kooku sama sëriñ la man kese bokk ma ko kenn mbàkke bàlle loo dund doyul mm. man bu la fi yàlla bàyyee damay gën a kontaan doomu ndeyu sëriñ Modou laay mm. doomu ndayu sëñ xaadimu sëñ daam at doomu ndayu euh, am na ci euh, magam joo xam ne naar lañ koy dàqantalee. ah balay sa. waaw balay sa am na ku mu bokkal koo xam ne. Mm-hmm. yaay ji naar la. Mm-hmm. Euh, doomu sëñ daam la euh, kii sëriñ naar xaw ma nan daal sëñ Sadiq wala ku ma koy bind rek. <laughs> xel day fàttu xam nga li moo taxoon ma ne ko doo sax nuyoo. parce que ay gros mots laay ragal nii. ay ca damay nuyu Jaaji Fall borom oto yi ci man kooku sama xarit la ah Jaaji maa ngi lay nuyu yow ma présenté la Jaaji Fall. baña <laughs> ay boo xamee kooku. baña kaa. laaj ma lu muy dugal ci dëkk bi. li xale yi naan baña kaa. laaj ma lu muy dugal. Hmm. ay oto 2023. moom dépasse maanaam yu ñëwagul <laughs> eh, man mosuma gis lii gis nga nee na ma si indil ma ko. yow buñ ñu paree ñun dañuy dem ci jaaji parking oto 2024 la ay oto 2024 nga bëgg moom moom ba pare macha allah li ma naan ko sama mag ji loo jaay yaa ko moom te jaaroo banque def prêt moom ay oto mille 2023 lay dugal nii ci port bi <laughs> ay dédouanement 60 millions dédouanement rek jaaji yow duna rek yàq say booy ak say grand day goro moo léegi léegi xam naa <laughs> man jaaji laa bëgg <laughs> bar Serigne Saliou Serigne Aïssa léegi Pape léegi dama lay bégalee waxal jox ma ma wax dama lay bégalee ak euh, ak Soda Bousso waaw ma bëggalee la ak Soda Bousso. waaw bëgg naa ko mbaa yaay bi la. waaw ban la ci caat caat. yoroo jikkoy caat. waaw man parce que caat da daan da réew yëg boppam. man caat laa te yow donc comme yaay caat nag dama lay bëggalee ak euh, caat ak Soda Bousso. mbaa ngeen yokkal ko Amina Suway bi. Euh, mami Suway ah, bi mami. comme ça mu mën a parce que dafa bëgg ay tavasi go. Ah, Sénégal jaay la ngi yëngal jamono ku sa jamono yëngu nga yëngatu aca lii ñu yëngal jamono ah soo daa ngi yëngal jamono bëgg naa ca yëngalin ba nanu tey te yaru waa Sénégal jaay la ngi yëngal jamono sëñ sëñ ma maam dem ngee ma maam lu bees moom ak euh, euh, Philippe. Philippe di ngeen am exclusivité bi si semaine prochaine euh, ci télévision Futur Média doon ci bégal ki nga xamee ni mooy Dani bu sama sët bi bëgg lool Viviane donc Dani bu ñu ngi ko ci bégal bu baax bégal ci itam paplam Lam chéri ah ñu ngi ko ci bégal moom tamit euh, bu baax euh, dem ba dëkk bu ñu naan Paris bégal ci Adja Dieng Astou Sow VIP ak euh, Adja Thionni Diop ca Paris ñoom itam dañuy béggee Pape ak Poté ci télévision Futur Média yi yëpp rek pour gunge leen fii ba midi 30. Aïcha Baye est-ce que sa table boobu baax na wala. table bi dama ko kii tey tey damaa tëj tey dama teel a tëj. waaye boo nekkee say nawle booy tëj doo tàggoo buñ mënta génn nag. boo ñu tëjee ci biir nag. amoo ay ah mardi yow noonu ngay def man daa am nu may ñëwee. Ah. yoo xam nga par mardi mami suwaay bi ngay tudd. waaye man par mardi par mardi maay kii <laughs> fi ne foofu dara amu fa loo laa tëj damaa teel a bloqué kan dama ko kànnaar xoola machine bi dama kannaar nii damaa kànnaar rek taxaw bàyyi bàyyi lépp apulaay muy dugal rek. waaye yi yàgg apulaay lan la. mardi rab yi day génn rab yi c'est rab. ah c'est rab. c'est le rap man nag Pape nag damaa amoon yaakaar ni tey di nga toj dëkk bi ndax démb vingt une heure nga tëdd tey la mardi yow mardi da ngay reewantu man damay yëngu mardi non mardi man sama yëfu caatay génn ndax man xama caat laa xam nga sa la yàq ba pare dem bàyyi la sama yaay ak sama ma yàq ba pare nax saay léegi nag comme yow da nga yàqu mardi man damay yëngu mardi <laughs> yàlla baax na man kon bàyyi ma bëggal sama bopp ba xam yéen ñi may seetaan ku ma ci mën a bëggal nii bind leen ma message sax ma bëgg message sax dañ ciy bégal nit Pape. ah ben kon bégalal sa bopp ndax man tey damaa yëngu ah. ah tëj sama. Pape li ma la bëgg a wax mënu ma la koo wax xaaral ma bind la ko. damaa teel a tëj sama machine. si bind ma ko léegi nii ma jot ci. allo Khadim. <laughs> Khadim. ça va maa ngi nii ci télé bi direct fi mu ne ñëpp boo bëggee ma wax sa sant ñëpp xam ne yaa ngi ñooy wax téléphone nii. xaadim xaadim xaadim mbuub xaadim mbuus xaadim jeng mbuus séeri mati laay waxal nii borom usine ba ca kuunuun waaw ah xaritu paa bi toje ay terrain. Eh, eh, eh, bon euh, léegi ñu continuer euh, déranger Viviane ñu ngi ci doon bëggal. <laughs> Euh, bi moom teel naa daw. Ah, nee na ma déet déet. <laughs> ay wax laay bañ bu leen fàtte tam xarit yegg si na. mardi képp kuñ ci mës a tooñ rek. ñëwal lundi clamé ma ko ndax man lépp mardi laa koy faj. léegi yow sa xel. yow amoo koo bëgg ma defante sa xel sa xel mercredi lay dellu si ak lundi. waaw mardi moom sa xel lay def. mais mardi yow amoo loo bëgg ma fajal la ko léegi léegi léegi. nii nii nii nii nii garaaw bul faj dara maa ngi faj lépp. maa ah. ngi faj lépp. kër gi tooñuñu la. maa ngi faj lépp man. kër cu amoo fa problème maa ngi faj lépp man. sa kër amoo fa problème maa faj lépp man. plateau bi maa ngi faj lépp. jote woo kenn maa ngi faj lépp caméraman ni kenn neexu la <laughs> man wax ma lu la métti tey damay faj man tey journée faj la. kii dama koy teel a réglé moom dama koy teel a moom Thio lu leer laa leen wax léegi Thio. <laughs> man ni sax damaa bëgg a dem. foofu foo jëm. man damaa bëgg nga libéré ma Pape. yàlla tere. li Macky Sall di joxe maanaam ñi yàgg si prison diffamation laa bëgg. <laughs> loolu tudd. grâce la bëgg. déedéet am na boo xam ne mooy da ngay génn waaye loo def ñëwaat. liberté provisoire provisoire laa <laughs> bëgg. <laughs> waa man ban wàlliw laa tooñ rek ba war a taxaw ak coonii rek muy wax lu ko neex. mais lu ma xam kon lan mooy diffamation. mooy li ngay def nii <laughs> xaar ma nuyu Ndeye Marème borom Dakar Afro. di nuyu Néné Gueye chéri Baye. Eh, di nuyu ki nga xamante ne mooy Binta Mbaw sëykat bu mag boobu nga xam ne Kumba Caam yaayam ca Pikine Pape looy ree ci samay dédicace. <laughs> yu ko neex ki nee na bonjour Pape waxal poté na diminuer volume am parce que mari Bane mu ngi nelaw nii. kii Ndoye Bane la. <laughs> lii yëpp ci xeetu bëgg promo la waa d'accord amul problème. kon baal ñuy wax ndànk ndànk ndànk waaye Marie xam nga ne buy nelaw dend ak ku ñaaw comme ndooy ay nelawam du yàgg ndax day tiit boobu bii yooyu bakkan di mel ne ay ay néegu Marie de xam naa daa gore Marie nag ndeysaan ci famille bu baax la bokk luñ li ko yaayam sant lay def sëy rek euh, mbokk yi ngeen baal ma euh, tey la mardi xanaa moom xamul woon ni tey la mardi ba muy mardi bu ñëwee day ñëw ak ji caat léegi comme ndooy a ngi tëdd euh, ci Marie Abdou Guité laa lay may. eh bala nga maa may Abdou Guité ubbil benn pot ñam ubbil pot bi. lemal kubéer gi dama yàkkamti maa lemal kubéer gi lemal lemal lemal cappal soos ko ñamal. ok ah. waaw. li nga tibb dafa bari Pape. waa bi tuut <laughs> ñamal waa ñamal <laughs> ok. Mhm. ok. saf na chocolat. ok. voilà wéli ça c'est la glace c'est la glace des glaces. <laughs> wéli la tudd léegi dama lay tegal Abdou Guité. waa woyu mbëggeel bu neex. boobu bëgg naa ko woyu mbëggeel la. mooy bi mu naan ko mën naa xalam mën naa rii. très bien. naa la koy may. je t'en prie ma may ko je t'en prie. waaw léegi dama bëgg ngeen wane ko directement xar ma bu ko defee mu am kum ko may directement. Pape kaay nii mayal ma ko ki ma ko bëgg a may. yow mii mel rek. ok waaw tey la mardi. yow taxawal nii <laughs> taxawal nee nee nee waa. yow ñëwal ci man ñëwal ci ñun ñu am kuñ may Abdou Guité bi. Abdou Guité bi. waaw. xam nga. ñun xam. xam nga. yow xam nga am na doole soxor na yow am nga doole soxor nga am naa doole soxor nga te yéen ñaar xamante ngeen man xam naa ni xamante ngeen yaa ko moom yaa ko moom na moom <laughs> ay ànd yaa ànd ak man doole soxor naa bëgg naa ko bëgg na ma moom it bëgg na ko moom it mu bëgg ko ñoom ñaar ñu bëggante ma fekkee gis am yu ma ci jàpp. donc ñoom ñaar ñoo bëggante man sax nee naa ko moom bu ko ma bëgg man bëgg naa ko ba pare. donc yow boo xasee ba bëgg rek bëgg nga. barki Serigne Touba Mbacke. jaral naa ko boo bëggee may wuyoo léegi madame Guisé. xanaa gën naa leer. mais kii kan lay sérieux kan lay sérieux. lii coupure la wala lumière. am ci télé bi. bokkul de. Ah. yow xam nga ne li nga gis ak li ne fii bokkul. kon gisee bul bëgg lu neex say collègues. gisee laa gis. waaw gisee nga gis. te gis naa. gis nga. te am na doole soxor na. ay yow xam nga ah boobu ngàdd. kon gis-gis. boobu ngàdd day paap fa nga jàppandu rek la fee daanu. kon gis-gis gis-gis. voilà <laughs> kon gis-gis ñi ngi lay nuyu bu baax euh, tu sais que je t'aime beaucoup mais c'est la télé. noo koy waxee on fait que. que de la télé. on fait que de la télé parce que la télé c'est fën yi dañuy fën yi ñun ñaar ñu fën jàpp buzz. waaw buzz ma buzz mais Pape naa. Hmm. te lii ma lay wax nit ñi dinañ foog ne damay fo. Hmm. man alphabet français mën naa commencement bi ba fin te dégguma tubaab. est-ce que mën nga commencement bi ba fin. mais mën ko dañ ne alphabet français tubaab. waaw waxal waxal commencement ba fin ma xool. mais xanaa déparé wuñ A. demal xanaa jeexewut Z. waaw mais. xanaa mat na kon. man nii laa waa léegi diggante buñ déparé fii di dem Touba. man bala ma jóg laay yegg. nga teel <laughs> waaw mais loolu baaxul. xam nga autoroute bi xale bi daan ne varaj varaj. jiitu boobu ngay jiitu te ngeen war a ànd. wala moo problème nag man ndekete. <laughs> <laughs> yàlla baax na. yow Pa wax ma da ngaa neex. yàlla baax na neexoon ndànk. <laughs> ndeysaan xam naa xoolal. xoolal bi lay def na tuddi sa invité yi nga xam ne Sénégal dañ leen a bëgg. ñoom duñ ko wax mais fii la ñuy bëgg ñëw. <laughs> fii de dafay ragal bu ñu song la xeex. déedéet parce que Pape Faye sa tànk yi ngay teglee xam nga day mujj meet te ñoom dañuy bëgg. bu question yi dalee après ñu am ñu jox leen tuuti ñam maxtaan ñu dee. ñoom ñoo gën a bëgg firi fii. des dañuy bëgg firi. moo yow tam tay ci guddi tay ci guddi nañ dellusiwaat ci déclic mais ma profité ci rek coo. waaw euh, nuyu Adjaratou Rama Diaw. waaw moo ñu toggal cere yi chaque guddi ak Awa Gaye. Adjaratou Rama Diaw Awa rafet mi wax Adjaratou Rama Diaw. Euh, bégal ci itam Jodo euh, Mbaye yaayu Rasoul. Jodo mhm. Mbaye yaayu Rasoul madame joob moom tamit mu ngi bégee actuellement. Mhm. bégal ci itam Mounas Lo Mouna yaayu Ndeye Michel ma nga ca France. may ma nuyul la sa benn xarit nga nuyul ma sama benn xarit. kan la yow kan nga bëgg ma nuyul la Ndeye Michel France. Adja Lo. Adja Lo non sama xarit la man. waaw man sama xarit la. léegi damay def ni waa dëkk bi rek jël xaritu jàmbur yi <laughs> kat réew mi léegi koo fi présenté boo ko namee comme ko présenté ngay woo ko ana diw <laughs> li xew de léegi. te yaa leen présenté ba pare. ñoo la koy mujjee gis boo namatee Adja jox ay nouvelles ci sa xarit <laughs> yow mosuma gis Sénégal. léegi Adja sama xarit la boo namatee. Adja Lo léegi yow jox ma ay nouvelles Adja. Adja mu ngi ci jàmm woo naa ko sànq euh, nee na boo ko soxlaatee woo ma. léegi léegi <laughs> Pape yaa ngi wax lu am importance li dàq li nga war def sax ngoon xanaa xamoo ah waaw say xaritu bopp ñoo ko présenté ñoo lay jox ay nouvelle caane ci boppam laa wax ma ca kaw lak boo ko namee man ngay woo léegi ah <laughs> ak nga ba ci taawu Fatou Diola boobu xam nga caane xam nga caane nag dëgg-dëgg moo yaayu moor mu ndaw léegi boo soxlaa moor ci boppam sax boo ko soxlaa man mii ngay woo ah bébé moor bébé Mor Cissé mu ndaw. ñi ñu fayee bàyyi Mor Cissé. Ah, lu leer la moom lañ tuddee bàyyi Salih ah, yàggul dara mii ngay woo boo soxlaa Mor. Pape <laughs> de kon bu yeboo rek dee ma jël kon ndax ñi ma la war laaj ñëpp. uyul kii naan ma Kader Lo laa tudd man maay rek ajaaloo yow sax boo soxlaa ajaaloo ci man ngay jaar ne ko waxoo dëgg yow boo soxlaa ki nga bokkal man ngay woo. moom rakku ajaa bi <laughs> Kader Lo waaw yàlla baax na xam nga loo ma def nii. <laughs> Ah. ku mbilimbaane fàtte ñi ma waroon nuyu nga yóbbu sama xel ba xama xaama nii taat ndeysaan damay jukki nga ma yàqal rek. da ngay peer vite fait. xam nga moom nga nuyul ma ko. xaara balaa xaara xaara xaara xaara xaara xaara ndeysaan est-ce que xam nga ni xaali Diop sax boo ko soxlaatee mën ngay woo. di nuyu sama rakk xaali Diop. xaali Matar xaali Selli Mbeng borom bato yi ci Cap Vert. barki Serigne Touba. xaali Diop ñu ngi lay bëggee bu baax. billaay kooku bés kay Diop ay maamam. sama rakk sama xarit. vraiment nit ku nit ku baax Xali Diop. kenn du kontaan naa. nuyul ma Adja Thiam ba ca Lyon. mais Adja Thiam sax boo ko soxlaa man ngay jaar léegi. <laughs> ah loolu mënul nekk. <laughs> yow am na nu muy demee. boo duggatee kër yaayu bébé Lamine chéri papa. boo duggatee këram da nga ma fay fekk ma toog. Lyon nga jëm kon ma teel a toog. nga teel a dem Lyon te <laughs> boo ma woowee dama naan la coupeel. yaa ngi tooñ. waa coow dana la woo téléphone yaa tooñ nawleem moom nee na dematuma. damay toog ah hmm. baax na. yàlla dama baax na je pense que Pape yaa ngi tooñ. xam nga xam nga léegi lan la. coo 12h27. deux minutes yi ci des yi ci nag gaaw jeex ñu tàggoo jëlal jëlal jëlal non nañ ko tàggoo may ko waa télé bi jëlal léegi deux minutes aw ma droit ñoom ñoo moom télé bi suñuy patron lañ may nañ leen liñ dese kaa ñu tàggoo dem. ñu may leen nañ teel a doyal ñun nañ teel a doyal nañ teel a doyal nii la tàggoo nañ sax léegi. may nañ leen deux minutes may nañ leen kon émission bi jeex merci beaucoup Adja Ombaliko.